ak juróom benn fukki nit ñoo xam dañ leen invité à que ñu taxaw nërmeel suñu justice et que ci nit ñooñu daf ci am ñoo xam ne seen loxo dafa takk deret ñoo xam dañu rey magistrat histoire retenir ko ñoo xam ay charlatan lañ di génne leen fraîchement ci seen cellule te jugé wuñ leen ñoo xam ay diffamateur lañ ñoo xam ne bref justice daf leen condamné te jugé wu leen wala ñoo xam ne sax dañ leen amnistie ñooñu ñoo war a taxaw jàkkaarloog sunu magistrat yi dans le blanc de l'œil wax leen fan lañu war a awale suñu justice ak naka lañu war a doxalee suñu justice. dafa am loo xam ni dafa am mooy ñi nga xam ni ñoo doon saaga suñu justice ñi nga xam ñoo doon vilipender suñu magistrat yi tey ñoo war a jàkkaarloo ak suñu magistrat yooyu. kan la la profité li nga xam ne moom mooy li ñuy wax amnistie bi am. ci crime yi nga xam dafa amoon deux mille vingt et ba de mille vingt quatre te crime boobu dañ ko entériné à travers benn compromission boo xam ni sunu assemblée bii nga xam ni assemblée euh, bu bu bu nërmeelu la moom moo ko moom moo ko jàllale.